du nom d'Ibrahima Diop euh, il nous fatigue un peu ci cas Omar Blondin Diop considérant que sa frère la euh, leeralal nu un peu. non c'est mon beau-frère la voilà voilà leeralal nu foofu. moom c'est l'aîné ok moom mooy seen mhm. taaw. moo doon mooy doon seen taaw ci sama côté euh, goro yi. Mhm. voilà moom moo moom moo doon taaw. il est un frère donc à votre mari. voilà. ok mhm. c'est important. Mhm. peut-être Blondin ak Omar dafa am loo ci jàpp loo ñu ci mën a. baaxee balaa ñuy jàpp non Omar Blondin Diop la tudd. ok Omar Blondin Diop le personnage. waaw le personnage moom euh, voilà li ko li ko tax euh, dafa ñuy rappeler tey jii bu baax a baax ci lu lu bare bari. Mhm. Euh, c'est-à-dire que le fait que d'abord moom bu mu demee jàngi. très jeune nekk def normal sup def de très grandes écoles. Euh, gis France nu mu demee ak nu mu ak nu mu demee ak euh, Afrique daal di presque bañ loolu yëpp fekk jàng na ko bu mu mët. Hmm. nga xam ne ñëpp a ngi koy rêvé pratiquement ne moom dafa du def diplôme. Hmm. voilà du def diplôme parce que ñii dañuy soppi sa xel quoi. Ah. dañ lay teg beneen nit quoi. Hmm. voilà ba pare boo paree day dañ lay moom. voilà donc ci yooyu la nekkoon. donc euh, fekk Senghor moom. Hmm? France rek la doon noyyee. civilisation France bañ na ko ba nga xam ne boo mu paree Normandie la dem dëkk. <laughs> ci président Sénégal. Hmm. Euh, voilà donc euh, mu ñëw euh, ci ci noonu mu juboowul ak ñi nga xam ne ñoom comme ñoom Houphouët ñoom Senghor. Hmm. dañu buggoon assimilation ànd ak ñi nga xam ne au contraire ay révolutionnaire lañ nekkoon. loolu nag moo ko opposé woon ak Senghor. Mhm. léegi nag ñoom frère mi ñoom ñi toppoon ci ñoom ñoom Diallo Diop ak yooyu. Mhm. voilà du doon ñëw ñu taal ay cocktail Molotov <coughs> yoon bi mhm. ñu jàpp ñu leen woyee le groupe des incendiaires ñu jàpp leen. Mm. donc euh, fekk na ko moom sax nekkul Sénégal. mu nekk beneen bi loolu du xew na fi waaw léegi Senghor jàppalu ko foofu ñu indi ko. ñu ko fii ñu téye ko gore téye ko gore ba ñu xëy benn jour ñu ne dafa xaru. <laughs> c'était en quelle année dafa waaw. ban at la woon. Euh, soixante euh, mhm. cinquante donc ñu xëy benn jour rek ñu ne dafa xaru foofu. Mhm. mais bon xam nañ ne que euh, ku doon liggéey lu mu doon liggéey xelam nekkul woon ci naan dafay. leen jàpp ne dafa am lu. lu xew voilà léegi nag am na ay témoins li fa xew yëpp am na ay témoins. donc ay frère am euh, dont ay policiers yu yi ko defoon yu génnaat wax d'accord la fa nekkoon mhm. euh, jël sax ay photo à l'époque ngay toog ay at jékki-jékki rek ubbi journal rek ñu wone ay photo mhm. ndekete ñu ngi ko dencoon seen kër mhm. donc euh, alors ci saa si comme tey rek dañu weddi ne dara amul dafa kii dafa réew xamul lii xamul laa dafa teggi ndawal foofu lañ doon xoolee xeex bi daal voilà te tamit boo ko méngaleeg tey <laughs> euh, bi bi yàlla defee noonu ba mu gaañu euh, ñu bari ci mag ñi ñëwuñu jaale si ay parents ndax Senghor photo bi moom la xale yëpp génn moom la moom la di di euh, ne dafa suicidé woon. voilà xale yëpp génn <laughs> mu naqadi leen. xale yëpp génn du moom rek lañ jàppoon jàppoon nañ sax ay doomu sëriñ yu mag du moom rek lañ jàppoon ñu bari lañ jàppoon mais comme moo ci gaa gaañu moom la gën a tur turam des mhm. mais xale yëpp génn école yëpp grève Sénégal yëpp grève mhm. mag ñi di nëbbatu di dem jaale ji guddi wala sañuñu jaale moo tax bu ñu wax Sénégal tey jii nii la mel ma ne yàgg na fi yàgg na fi nekk de. Mm. Ah, dara beesu fi. dara beesu fi. léegi réseaux peut-être mooy fësal. mooy fësal. mais ba léegi rek le même phénomène mooy. xale yi ñooy jël combat bi. Mm-hmm. xale yi ñoo jën combat bi. donc euh, plus tard après léegi euh, am demoon na sax euh, bëggoon nañu am procès pour xam exactement. ce qui s'est passé te ba léegi mm-hmm. bàyyiwuñ ko. parce que parce que débat bi ba tey. ñu ngi ci non ba léegi bàyyiwuñ ko que lumière soit faite sur son dossier. voilà. surtout surtout photo bi danga nga koy xool rek ah, xam ne guerrier la kii da nga koy xool rek xam ne guerrier woo ngi nii. Mm-hmm. xool ko bu baax. kii da nga koy xool xam ne guerrier la. te Ahmed Ndoye il n'a vécu que 27 ans. voilà 27 ans. c'est-à-dire bu ñu la waxee jaar jaaram yëpp ci 27 ans. waaw tu vois. 46 nekk ak ñoom ay euh, ñi jël indépendance Algérie jaar Palestine jaar Mali ànd ak les Black Panthers. aux États-Unis euh, voilà. ànd ak euh, kër ga ku ne jaar na fa. son héritage tey pour ñu jeexal jaar nañ fa waa kër pas Mandela mais les yeneen activistes yi ANC yi jaar nañ fa. Mm-hmm.